zam yaakaar na gaay niñ ni su waxee l'an 2000 mom dafa dafa mel dafa faté boppam mais sa kala wax <laughs> ba nga bëreeg boy fay batay yalla dogal nag amatoon nga combat menan say tëggoon nañ sa combat yalla dogal bëreewoo woko ndax ay amon na ay problème yu ci amon yaakaar na su bañ ajoon la ci. bo dikaté ci lol ak togaay bi ak ak aj ak yoyu loy expliquer ñay Ndiaye wa baba gam di sante yalla rek. wa di sante yalla bu baax parce que ñun ay xalé lañ. Mm-hmm. yaakaar nañu lenn lu dul làmb comprendre nga. Mhm. toog nañu ay tok lañ at bërëb ñu. Mhm. comprendre nga moom lañ sanction et tout ça. Mhm. xam nga. ba wër ñuy léral ben affaire rek. moy ñun ay mbeur lañ. direct mbeur moy daw suñu yaram. deug la. man ba wër premier sama première année ci lamb la gëjëm défaite ben défaite la am sama première année si làmb bi ngay njëkk a bëri. mooy njëkk sama troisième combat. moy bi la ki di daan euh, chat yof ma chat yof di daan. waaw. ma teju ay wër mënuma génn. Mhm. bu ma génnee entraînement laa dem ñëwaat toog suma kër. Mhm. defet bi jàpp ma loolu moo ma dugal ci lutte simple ba ma adhéré si carrément. Mhm. defet bi ma caatu yof daan noonu. bi mu la daanoon. waaw moo tax nga ne man dinaa nekk mbër. waaw parce que damaa dem daan ma jël bu rëy dugal ma top 5. Hmm? mu ne man naa naa naa naa def loo xamante ni waa dëkk bi nañ ma mën a. nangul dinaa wanaat waa dëkk bi loo xamante ni nañ ma nangul. ok comprendre nga loolu moo ma tax dugal ci lutte simple. bama adhéré ci ba ba ba dem ba lutte simple moom ben instant. ñun ay mbeur lañ Babacar. té ñun tay amul ben mbeur bu sañé taxaw fi Sénégal fii. né Zambala ma gaf mbolo sama combat yépp sama adversaire dama lay dominer ci mbolo carrément. parce ah, que combat promoteur bu bëgg na ñëw ñu signé damay jënd lu 10 blocs. 10 blocs ku billet. dama koy jënd man damay mobiliser man man duma duma du ma koñ. gaay ta gaay ay koñ ñu leen top man mbeuru dëkk la man mbaaw ñëw topp sama ginnaaw te mbaaw dëkk la mm. mbaaw moo jur kër mbay Fall petit mbaaw mm. Zac mbaaw loolu yëpp mbaaw a ko mm. te jeunesse boobu yëpp dañ may topp mm-hmm. damaa bokk si làmb damaa war a bëri da ngaa war a bëri way te ñun toog nañ toogaay bi yàgg na Babacar yàgg na lool te ay frère xam nga mm-hmm. jàppuñu si dara comprendre nga mm-hmm. jàppuñu si dara affaire yi métti na CNG fay ñu saleer ay mbër lañ dañoo war a bëri làmb lañuy yaakaar mais est-ce que ñu ngi lay démarché wala démarché wuñ la. non Babacar man chaque jour que jëfee promoteur woo ma. ah chaque jour yàlla xam ne loolu. kon kay promoteur yi ñu ngi def seen devoir. ñu ngi def seen devoir benn instant. ok kon ci adversaire yi la ci adversaire yi la. benn instant ñu ngi def seen devoir. Mhm. tey dañu xool benn laa boo xamante ni gëj na bëre amul mhm. combat. Mhm. mais am na yenn gars yoo dañuy profité si moom di ko jéem a fay kese boo xamante ni mooy loolu. te man kenn ku nekk gis na li may def stade. Babacar man damaa saf sàpp ak làmb. yalla xamna lool ma sha allah dama soog saf ak loolu. billaahi wallaahi deretu mbër moy daw sama yaram. han deug la ah, amna lo loo ni jombale naa sama bop man dama beurek Mamady ndjay tok presque 4 ans yo xam te ni bëreew ma. ñu ne sa combat ak Boy fay ma tok xama nga gëj naa ma dem jeli Boy fay mhm. xolal difference Mamady ndjay ak Boy fay ak Boy fay Mamady ndjay fan la nekkon waaw ndjay amul benn boy bu ko ñëmé won fi mhm. ma jël ko beurek mom daan ko. ñu mhm. ne Boy fay ma jël Boy fay beurek mom comprendre nga. Mhm. bëreeg moom daal tey ñi ma war a bëri xam nañ seen bopp. yow yow ñaan nga parce que kii. yàlla xam na ne ñi ma war a bëri xam nga mu day tudd tur moom daa tudd tur saam nee na nee daf ma seetaan ak Serigne Ndiaye. Serigne mhm. Ndiaye ne daf lay bañ parce que nee na